يحبك ورا خايدا كتابا الإداء والكفور قائدا الذي يحبك ورا باي تعالى المسيدة والحنان في قدر دلال والحناء جوتي يقتر رداء والكناء نورا أنزل الوجه الدوام أزني على الإله ثناء سرا وجهرا جهرا دعاء سرا وجهرا دعاء أذني على الإله اسمع سرا وجهرا دعاء تنسي سرا وجهرا دعاء أذني على الإله كتابا رمي أنت حبيبي خليل قبل تبيبا الكتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي كنت قبل طبيبي عند إيسي آه جاري أنت جاري أنت جاري رب للعبيد كل سبب القرآن جوجل تقول تقول kuy soppeb alxuraan jugal taxaw ca kaw njukkal xasida ak sëñ Bamba gi ca kaw njukkal sëñ ya rasulal rimi anta imaani ku bëgg a bari xaalis lambal addey sëñ Bamba ñëw fekk fii sëriñ Xaadim ngay nga jox ko ko ñaan na ci dooley sëñ Bamba ko jox addey yàlla nga bari la ci dooley sëñ Bamba ñu leen jox ko addey xasida gi ko أنا يبخي عمامي فلا ربي بك اللئيم مؤينا مؤينا عن جنابي وكان يبخي عمامي بعد ربي لا عنا عن بمصطفى وعمامي حملا حجنا بعد ربي لا علم عن كل شيء فاروق بمصطفى وامامي

حمدا للمقافى خيرا من نعم إيمانيا حمدا قد جعل الله سمدا للفقفاء بنعم إمامي مدن وجعل سرمدا للفقراء غير فبنعم إمامنا وجعل سمدا للفقفاء من خيرا أمن إمام ساميا لا سرمدا قام ورننا دلو سنت خير الخديم شيخنا أحمد فل القديم شيخنا ورنانا دلو سنت الخديم شيخنا مدان فل القديم شيخنا sant xay xadime na ahmadon fal fil ayn delu sant xay xadime شيخنا بك بايدام أحمد ميل تدانو يقبل غنيل تارو تدين بايدام بايدام lanu tanoon mooy ëppal ngëneel baay daam ahmadu may lanu tanoon mooy ëppal lanu tanu moonu yóbbu yeneen ay sunu waaji ku si yendu gaay a cabaay wara jogo sant yàlla tey def yoone waaji gaay a cabaay nu daakaas baraay di salli yoo kay ko jóg gis fu dàq kër ga mu miine sotti yobbal tey ko jóg danu daa dox xëy di gontu ba dem ndar tey ku jóg war wat ak gaali safiine ba dem ndar tey ne woon ndar ñëw Mbàkke leen def Njurbel seyray ndawal gi dootu nu buune ñu Mbakke leen def njur ndawal gi dootu nu buune yindi xeewal ku seet lawam gi ta santo dara loo baax faate ak Maymuna te santo teralo baay faate ak Maymuna may doy na sëpp góor ci bu farlo xeeti yóbbal far aw yoone yi la may bu farloo xeddi yóbbal dodoowa bakke yi la may dana sépp gor ji bu farloo xeddi yóbbal dadaa defar aw farlo xeti yo bagada dakte illa matulo ki sumya ak illa tabal gege naitale lampi mbajilene lambal ngegenaay dari naari yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu dalal tagar gi tay biin biine Mbakke toog yaa ngi nu dendal danu dalal tagar gi yaanu nandal ci koppi weer yi nga feeñal yaa di mbër yaanu tàggaleeg naan ko ne ci koppi weer nga feeñal yaa di mbër yaanu miinal si ataaya jël sa ndox meenu tàggaleeg naan moo ne kafe ki kaasi ataaya jël ndox meenu tàggaleeg bakke mbille mbaa ni ku ton ni niw wa tasammu wara kañ Seexu Bamba ku yal diine ku te nini wo te samo da samo wara kañ te nanu kañ Seexu Bamba ku yal diine kër jaam ñi nanu kañ Bamba ku yel diine ku yel diine ñi nanu kañ Bamba ku yel diine ba buru makkiya waa ngi yaanu ko saafal boole noog sa jigéen yi uurul miine yàpp waa ngi yaanu ko saafal boole noog sa jigéen yi uurul miine yaa du sunu wirdu yaa nu doy ci fuqaadam ba caballa yaa nu doy yaa du sunu wirdu yaa nu doy ci fuqaadam ba caballa yaa nu doy yaa du sunu ismu laa yi doy tere teewal yi li lam ni sangoone ya di jaddu bu jaloor bi fekk ya ci dunya kon yow soo daan bu jama ak neene ya tëddub njaluur bi fekk nga ci dunya kon yow suda jama ak neene di baayu miskin yi yow la nu def ndey yaa du nampal sa ween gën ay ween ay sobre gën yaa du nampal sa ween gën ay ween yaatu nampal sewir na gën sewir na gën yaatu nampal sewir na gën yaatu daa jox digal ànd ki xee daadu simal cerey suba jël ànd ki xéewal yaatu daa may naatange yaa di ndoxum dex yaatu tàmmal di le junni di ndoxum dex ndoxum dex la junni a di peppum wurusu di tool bu du sappi ku lagar do tu gaddo ay bu yaa du may may yu dëkk fi Madina di duraamal danoo fi ay waay mbooloo mi ku gëm sëñ Tuubaa jógal taxaw ca kaw màggal sëñ Tuubaa ku gëm sëñ Tuubaa jógal taxaw ca kaw màggal sëñ Tuubaa jar na ko jóg lool yaa fi loo mal fo في جرف القلم يا fi nekk bala ngaa toog lambal addey sëñ Tuba ñëw fekk fi sëriñ Xaadim ngay jox ko ko bu ko jox addey sëñ Tuba yàlla na nga bari le ñëw leen jox ko addey sëñ fi daaka law wa ko woote dem nañ ña fi daawa jëfaat woote weddam nañ woote weddam nañ daa kalaw woko woote weddam nañ na fi daa wajifaat woote weddam nañ woote weddam nañ fidaa kalaw ko woote weddam nañ ña fidaa wajifaa woote weddam nañ Mbakke maqaam maag say jagle kenn ma du ko say karaama ak say yëgo kenn du ko seen kenn mënu ko xam yor nga taajul keraame

diine bate ab sax di jëdd ju ñu yaw daana daane ya am diine ab sax ñu rëy ñett daanoo muy Tawfekh ju rëy